yéen la jeunesse lay waxal yéen la jeunesse sénégalaise gis ngeen lii ñuy wàccee fii si tefes Mbour côté Saly bi ay moor ñoo ne si gaal bi ay moor yaa que des morts yu doon dem jéem dem Europe par ñu chaviré si yoon bi ils sont tous morts il paraît que y a de deux cent corps voilà tey ñu ngi génne ay corps sapeurs yaa ngi ni di génne ay corps avec la police donc vous avez vu tout ce monde lu ko fi jar lan moo ko fi jar lan c'est quoi l'importance dund wala dem Europe nan moo si daax toog leen dund fii regardez regardez moom regardez moom ñii yëpp ay doomu jàmbur lañ yoo amoon espoir dem toog leen ici rester ici ñëm ñu ne Europe ñëpp bëgg a ñibbisi man mii di wax ak yéen damaa bëgg a ñibbisi je vous en prie dama leen ñaan si barke Seydina Mouhamad si barke El Hadj Malick si barke Serigne Touba ci barke Baye ñaas bu leen jël ci gaal yi ngir yàlla ak yonent lii. Regardez-moi Regardez-moi ça. C'est pas important. L'important c'est de vivre. dund moo am lii lan moo fi jar lii lan lan moo ko fi jar dem tay la sa bopp si géej gi géej gi géej gi lu ko fi jar toog leen liggéey loo am liggéey tool yaa ngi fi mën nga jën ak jaay lépp a ngi fi s'il vous plaît restez toog leen dund parce que lii après da ngeen bu amee day tas kër voilà day doon nit koo xam ne nii moo doon peut être taawu yaayam wala benn la doom yaay benn la si yaayam mel noonu bu génne yaay ji nu muy mel famille boobu nu muy mel regardez-moi corps là li ñuy génnee. lii en direct la nii mbuur kenn nettalu ma ko lu wuur maa ngi nii taxaw man la Ousmane Ndiaye Ponce maa ngi nii taxaw kenn nettalu ma ko direct la nii ni ngi nii tey tey tey di mardi di fekkee leer même tey di mardi. je vous dis je vous dirai tout de suite l'heure à 11h42 ñu génn ay corps regardez ils ont ramassé plusieurs corps presque il paraît qu'il y a 200 dans la mer ñi la ñeen foree ndànk-ndànk ils sont là du ay lépp du ay lépp mun nañu foraat léegi benn fii tout de suite foraat léegi benn corps lu ko fi jar pour quelle raison lan moo ko fi jar ah, yàq àdduna sa famille ku demut ku dig ba ba yàlla jël ko fi tey nan la waa këram nu ñu demee tey du ñu misère ba dee du ko fi jar te yow yaa ngi doon dund di añ di reer di ndékki am say copain di tëdd ah di dem say kër copain ngeen di dajee di waxtaan di dem def la neex di dund biir Sénégal bu màggal jotee nga dem màggal bu tuub bu Tiwaawan jotee nga dem fa Tiwaawan bu Kaolack jotee nga dem tey ngi nii vous avez vous avez tout bafouillé vous avez tout bafouillé je parle aux morts même vous avez ils ont tout bafouillé xoolal koor yi ñuy génn regardez-moi ça vous pensez que ça c'est ça c'est ça ndax lan ndax lan ndax lan alalu àdduna alalu àdduna alalu àdduna xoolaat leen waxtaan leen ak xañuy doom yenn kilifa yi aussi bu leen pousse seen doom yi naan de xoolal doomu diw xoolal doomu diw yéenay pousse seen doom bu ñuy def lu ñu war a def arrêtez ça arrêtez ça ou bien képp koo xam ne nii ndaw nga nga gis sa waa kër ñu ngi lay pousse pour nga dem à l'immigration nga dem jël gaal